jàpp nañ ko moom tëdd nii ci suuf maa ngi koy jël vidéo nii. ah moom moo ko nangoo jox. Dah ada mana? Dah bagus luar tak? Ah.

donc su fekkee dañu ñëw xool benn nit rek ñu yóbbu ko c'est parce que ñoñ ko ko dañ ko bàyyi xel kookat dañ ko nennu te japp na ne jàpp bu ko japp bi japp bu doy de la japp bo xamni manque de respect ci lu nga xamni moy nit parce que nit pour man nak nga ko mën a jàppee tëral ko si télé bi mal mënee ko melni comme si que kii nii moo amul benn droit mu melni que donc Sénégal bi ñu nek nit ñu nek war nañ tiitaat lu xol su fekkee nit ku koy wax dëgg dañ la war japp nit ku war kuy wax dëgg dañ la war mal mëne ku wax dëgg dañ lay toroxal mais ñun tiitaat suñu bop ñu xam ñun ñan ñu diriger ñi nga xam ñu ñuy diriger

su fekkee autorisation am mais de ce vendredi nous autorité dans dans sa xam lu leer mais ñun dañu ñëw pour déposer après demi vendredi dañu vendredi biir ñëw incha allah amul lu nu mën tere mars wàcc ci tëli bi ñaxtu lu nga xam ne moom mooy lu nga xam tey mooy mooy suñu luy tax tey ñuy ñaxtu surtout ñu nga xam ñooy étudiants yu nekk si privé bi suñu camarade yu bare bourse ak aide yu nga xam ne moom la état du Sénégal waroon leen fay bopp léegi ñu bare si ñoom kenn fayu leen ko mu bari ñoo xam ne aussi ñoo ngi si bi ñooñu tey ay bës yu ñuy laaj ay clé de loolu nga xam tey seen outil de travail ko am ñeen ne ñoo dañu dañ leen yóbbu école ba nga xam ne amul benn jumtukaay boo xam ne daan mën a jàng normalement tey ñu ànd ak euh, camarade Guy Marius Sagna justement pour revendiquer loolu pour ñu ànd ak moom aussi déposer lu nga xam ne moom mooy lettre bi ñu jël ko malmené ko ko te teguñu ko fenn sinon ñu bëgg ko ñu bañ ko si yaboo nañ jàpp téeméeri Guy Marius Sagna suñu marche bi dañ koy amal le 14 mu neex mu naqari bu yaboon nag ils ont bu nañu ko waaye nag tey jii nii dañuy taxaw temp xeexal suñu avenir parce que du ay màgget yu am seen i xaalis ba pare dëkk fële di def leen neex seeni doom nekk ñu Sénégal bi di jàng ñoo nekk di yàq suñu avenir ñun layu Sénégal voilà